alal mustamiin alkiram wa naqul lahum assalaamu aleykum wa wa barakaatu gannaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala te di ko màggal di julli di sëlmal ci yonentem bu tedd bi sallallahu alayhi wa ak i mbooleem sahabaam ñu ngi ñaanal jullit yépp tawféex ñaan yàlla koor gi yàlla bu ko yàlla def suñu mujj koor yàlla nangul ñu mboolem xeetu jaamu yàlla yañ ci def ñu ngi ziyaare mbokki jullit yépp rawatina kilifa diine yeeg kilifa aada yi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu kàtt nañu ñu jox ñu cër yu nga xam ni dañu tegu ci ndigal yàlla subhaanahu wa taala bu ko defee di nuyoo di ziyaara di gërëm bu baax ña nga xam ni ñoo yore wàlla technique bi fii ci jolof jolof point tv incha allah ñu ngi leen ziar bu baax mag ndaw góor ak jigéen eh, comme niñ ko doon defee ci suñu xaaj bu weesu bi xaaj bi tey nag ñu ngi ci zakatul fitri mooy muurom koor muurom koor incha allah dinañ ci gis la nga xam ne mooy àtte muurom koor ak lépp lu ci aju bu soobee yàlla bon zakatul fitri sunnatun waajibatun على أعيان المسلمين لقول آه، ابن عمر رضي الله آه، عنه حيث قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه ñu ngi déggee xadis bi ci abdullah ibni omar ibn xataab radiallahu anhu nga xam ne saxaaba la moom ak waajurum bi yépp muy doomi omar ibn xataab moom moo ko déggee ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam gisee ko ci yonent bi dund ko mu ne yonent bi faratal na e, muuram koor ci mboolem julli yi faratal na muuram koor ci weeru koor rawatina fukki fan yu mujj yi na nag bés yu mujj mu nekk loo ne saan arab moo ne saan saa boo déggee saa saa jamono yooyu ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam amuñu pot dot wala pot ndaal wala la nga xam dañ koy peese muy un kilo wala deux kilo mooy poids yooyu yooyu amutoon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bon ñoom dañ doon nat nuñ doon nattee mooy dañuy boole da ngay boole sa ñaari loxo yi maanaam nga tibbee ñaari loxo boo tiddee tibbee sa ñaari loxo euh, def ci benn euh, ndab tibbaat encore def ci beneen ndab ñaari tibb yu nga tibbee loolu lay arab tuddee saa loolu nag tey buñ ko peesee suñ jamono tey euh, bon maximum bon de kilo la bon de kilos la nga xam ne dañ koy arrondir ba nga xam ne du manqué la ëpp li moo ëppal moo gën la manqué li bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon ko génne ci tàmr parce que ñoom jamono yooyu tàmr lañ dundee tàndarma parce que boo demee tey euh, arabi Saoudi ak àll yooyu yëpp da nga que ne euh, tam tàndarma bi moo fa ëpp dugub suuna moo fa ëpp ceeb bi bon ñoom yonent bi sallallahu ci lañ doon génne parce que dañ doon dundee tàndarma mais ñun fii Sénégal rawatina fii ñun Jolof ñun tàndarma kooku ci lekk da nga jënd bitig bon amuñ ko. bon foofu dafa ñuy daal di wàcc comme amuñ moyen yooyu aw wala mu génne woon saa an mu génne ci euh, euh, ci muuram koor ba dugub parce que ñoom dañ doon dundee dugub bon tey ñun fii Sénégal ñu ngi dundee dugub bon muuram koor ku génne sa dugub bon baax na am nga muuram koor ci biir loolu nag dañu wane rek ne lii àtte bi bon sunna la boo xam ne sunna bu war la sunna boo xam dafa dafa war nga xam ne dafa waroon ci jaam bi comme ni ñu doon ko waxee jamono yi nga xam ne jaam amoon na ak ci gor bi tey bu ñu doon jël ñaari baat yi nag dañuy wax war na ci surga ba ak njaatigeem walla war na ci bon ba mbindaan ba ak njaatigeem bon war na ci xale yu ndaw yépp nga xam ne surga la ak seen njaatige mooy chef de ménage mooy borom kër gi góor war na góor war na jigéen tamit war na góor war na jigéen mooy muuram koor war na ku ndaw war na ku mag doonte koo xam ne que dafa juddu tey nii ñuy heure bi ñuy def émission bi bon war nañ ko génneel muuram koor loolu bon dafa war ci jullit yëpp bon nañu gis xarañ gu nga xam ne gi yàlla subhaanahu wa taala dëxëñ na ko ci muuram koor bon bokk na ci maanaam politique muuram koor buñ doon ko wax buñ doon ko waxee ci euh, baat boo nga xam ne dañ ko mën a comprendre annaha tutahhiru nafsa as-saa'im dafay setal yaa ni euh, aji woor ji lan la koy setal mooy bàkkaar yu nga xam ne ay décide la woon mën nañ ko waxee noonu maanaam jamono ju ñu woor yaa ngi léeg-léeg sa bët jam ci loo xam ne waroo ko woon xool léeg-léeg sa làmmiñ wax loo xam ne waroo ko woon wax léegi léeg sa nopp dégg loo xam ne waroo dégg léeg-léeg sa loxo laal loo xam ne waroo ko laal maanaam bàkkaar yooyu yëpp dañuy gis que ne euh, muuram koor bu ñëwee da koy raxas ba mu set wecc boon koy lii lu am njëriñ la parce que jamono bu ngay am bakkar yu xëñ na nga yëkk wala yëgoo yàlla subhanahu wa taala mu ne bu ma ñëwee dama la koy raxasal comme na koy yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam waxee ci hadith beneen ba nga xam ne ibni abbasin radiallahu mooy abdoulahi moom moo indi hadith bii moom abdoulahi moom abdoulahi ibni abbasin radiallahu anhu mu ne فرض رسول rasulu sallallahu alayhi wa sallam zakat alfitri tuhratan lissaimi minal wa اللغو والرفث وطعمة للمساكين mu ne Ibn Abbas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farataal na muurum koor mu nekk loo xam ne dafay raxas dafay setal aji woor ji bakkan aji woor ji ca la nga xam ne mooy ay ñaawteef ou ay bàkkaar yoo xam ne defoon na ko yam tey walla yam teyutoon mooy yu ma doon lim yi léegi comme yu mel noonu yooyu yëpp muuram koor bu ñëwee dala kay chatalal bu mu kii muuram koor encore beneen avantage bi mooy kañ kay jox ki wa tu'matan lil masakin nekk na loo xam ne xéewal goo xam ne gi bu ñuy war a jox miskin wi ñu xéewaloo ko nga xam ne ëllëg duñ nekk di laaj ci jour fête bi kenn dañuy feetu bu ñëpp feetoo ñoom tamit ñu ñu feete bon lii muy politique boo xam ne politique bu am solo te moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis kenn yonentu sallallahu alayhi wa sallam daana wax mu ne agnuhum an suali fi hada al yawm def leen fexe dindil leen miskin yi dindil leen ñu ñàkk ñi seen jafe-jafe jour bi parce que jouru korité ñu topp kër yi di wut ndimbal maanaam di saraxu nuñ ko mën a xàmmee nuñ ko mën a euh, ràññee ci waxin loolu mën na ñàkk bu fekkee jox nañ leen nag muuram koor bi avant ñuy julli bu ko defee ku ci amutoon añ da nga ci mën a régler sa añ ku ci mënta am leneen tamit danga nga mën a régler sa loola ba nga xam ne doo dugg ci kër yi di ñaan moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne agnuhum na ngeen leen woomal agnuhum na ngeen leen dimbale na ngeen leen dindir coono ani su'aale laaj bi fii hadal yawm ci bés bii gis nga mooy ngeen génnee asaka yi joxe génne bi baax na waaye joxe bi mooy tax nga am zakatul fitr bon bokkatu ko xam ne dafay génne ba pare toog ci maanaam boo génnee ba sa kër mu fay traîner ba julli ji ba ñëw amoo muuram koor joxewoo muuram koor dangaa génne waaye joxe woo te joxe bi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak nuuxum mooy jox leen leen woomal leen leen mooy teggil leen coono waaye kay doo génne muuram koor sa kër mu fay traîner bon boo génne muuram koor jox ko ña ko yeyoo boo xamul ñu ko yeyoo demal sa ilimaan bu nekk sa quartier nga ne ko muuram koor a ngi nii joxal ma ko ñu ko yeyoo yow nga génne nga set ci wecc bon am na solo lool moo gën di ko sàgganee bu baax muuram koor boobu nag ñaata la ñuy génnee bon wax naa ko sànq sama biir wax bi dañ koy arrondir def ko deux kilogrammes deux kilogrammes dana doy sëkk par personne maanaam deux kilogrammes ñaari kilo ci bopp bu nekk maanaam nit ku nekk ñaari kilogramme lañ lay génnee ci solo la nga xam ne moom lay waa kër gi dundee yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañ koy génnee ci la nga xam ne bi moom la gaa yi di dundee li xawli أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر من كل صغير وكبير زنقو من كل صغير وكبير nekkoloo nañ ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañ génnee suñu muuram koor daanañ ko génneleel xaleeg mag góor ak jigéen ñépp lañ doon ko génneel daanañ génne saan min taam bon ñam lañ koy génnee maanaam lu ñuy dundee la ci loolu la ñuy génne muuram koor muuram koor doo ko génne ciment xaar ma génne saako ciment bi muuram koor déedéet saako ciment mën nga ko jël saraxee ko wala yére kenn du ko génne muuram koor wala ay dal wala ay mbaxana maanaam matériel yooyu kenn du ko génne muuram koor la ñuy dundee maanaam la ñuy lekk ci loolu ngay génne muuram koor bon foofu leer na yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ci ci hadis yu bëri bon loolu ñuy génne noonu dañ cee war a génne deux kilogrammes par personne buñ seetloo Sénégal rawatina ñun Jolof la ñuy gën a dundee mooy ceeb la ñuy gën a dundee mooy dugub même mboq sax tuuti tuuti ñoo ko fi dundee mais sa kër ceeb lay dundee ak dugub seetal loolu gën a jàpp ne nga génnee ko sa kër mboq lay dundee génnee ci sa kër tàndarma lay dundee génnee ci sa kër leneen lay dundee génne ci loola bon lii lañ la sant lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant ay matériel yu nga xam ne yi matériel domestique yu mel noonu déedéet yooyu waxuñ waxuñ la ko bu ko defee nag euh, mën nga ko génne nag xaalis day fekk empêchement am day fekk ngant am day fekk ngant am dafa mel na tey yow da ngaa tukki da ngaa dem mission bu nga ñëw wàcc ci hôtel xamoo penku xamoo fenn yow hôtel bi boo fanaane boo yow dangay dem foofu ngant la mën nga seet la nga xam ne moo la war ceeb bu ngay dundee sa kër maanaam ceebu parfumé ngay dundee ci ceeb parfumé boobu ngay génnee ceebu siyaam ngay dundee ci ceebu siyaam boobu ngay dundee suuna ngay dundee moom ngay génnee bon yow nga xool njëgu ñaari kilo nga génne ko jox benn miskin boo ko xamul nga seet imam bu nekk ci quartier bi wala chef de quartier wala chef de village bi nga jox ko nga ne am li sama muuram koor jot li ma ñu nga xam ne ñoo ko yeyoo comme empêchement yu mel nii mën na tax nga génne xaalis waaye nag doo yore sab saako ceeb sab saako parfumé ngay nekk foofu di calculer di mathématique nga ne boo ci génnee nu mu tudd ci zakatul fitri muuram saako ba day jeex xaaral ma lamb sama poos génne rek joxe 1000 francs 1000 francs 1000 francs déedéet kenn waxul li la ngay dundee loolu comme am nga añab

loolu lépp mën nga cee génne ci ci ci jamono jooju boo basé woo boo appuyé sa imam bu nekk sa quartier rek incha allah wala sa oustaz nekk sa quartier dañ la mën a jàppale nga xam ne moom mooy eh, waxtu bu koy génne mais yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngale mooy nañ ko génnee balaa ñoo julli mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ci hadisam mu ne képp koo xam ne ki génnee nga ko avant ñuy julli ji am nga muuram koor képp koo xam ne da nga kaa génnee gannaaw bu ñu jullee ba pare amatoo muuram koor sarax nga am comme sarax yi ñu doon génne bu njëkk bi comme na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ibn abbas encore moom la ñu jàng hadis bi mu ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat alfitri tuhratan min للصائم من اللغو والرفث وتؤمة man من من داها من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة wa man addaaha baada salaati wa man addaaha baada salaati si nga ko de ko ko joxee après julli fa hiya sadaqatun min a sadaqa bon boobu dañ koy jàppee sarax bu nga saraxe la comme yeneen sarax yi bon nañ góor-góorlu joxe ko wax ñu génnee ko rek de mais génnee joxe buñ ko génnee joxe ko avant ñuy julli ji incha allah yàlla mën nañu nangul suñu suñu suñu muuram koor léegi-léegi nag dañu def benn observation nga gis que suñu mbokk ndaw kundaa yow yaa ngi yore eh, eh, eh, maanaam saako parfumé wala sa saako caroline yow loolu ngay lekk bon defal fexe génnee ci loolu bu indi yeneen mathématique maanaam yeneen calcul yoo xam ni yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegulu ko digulu ko maanaam parfumé ngay dundee nga ne damay wuti sayab joxe ko parce que parfum bi dafa set dafa nangam nangam déedéet la ngay dundee génnee ci loolu sayab ngay dundee génnee ci loolu daf naa wax nañ ko sànq ñan lañ koy jox ñan lañ koy jox bon ñañ koy jox ñi mooy ña nga xam ne ñoo ko yeyoo ñekk la te ñoo gën a soxla te jour boobu ñoom ñooy wër di laaj ndimbal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne leen coono bi nga xam ne jour boobu duñ laaj ndimbal bon bu ci jiitu mooy comme na ko yonent yàlla subhanahu wa taala ma innama sadaqaatu lil fuqara wal masakin mu ne sarax kuñ ku ko gën a mérité mooy faxiir mooy faqiir ku ci tegu mooy miskin lan mooy différence diggante faqiir ak miskin masalan faqiir am na reer am na masalan am na reer am na faqiir amul reer tey maanaam réeragul sàkkantuma ak ndékki réeragul ndékki kay waxaguñ ko miskin nag moom am na reer reer na ba pare ndékki nag la amagul suba bon kooku moo tane faqiir faxir réeragul sàkkantuma ak ndékki miskin nag reer na ba pare am na reer reer na ba pare waaye amagul ndékki bon mën nañu différence diggante ñoom ñaar loolu lañ mën a joxe misaal bon koo ci mën a daj ñoom ñaar rek ci quartier ba jox ko ko maanaam koñ ba nga dëkk ba mbedd mu nga dëkk ma dëkk ba nga dëkk ba maanaam gox ba nga dëkk ba balaa nga kaa génne di ko yóbbu ay yeneen gox seetal gox ba nga dëkk bi pare nga jox ñu nga xam ne ñoo ko ñoo ko yeyoo bu ko dee bon faqiir ak miskin ñoo ko gën a yeew moo tax yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne agnuhum ani suali fi hada al yawm koomal leen dindi leen coono teggi leen laaj jour boobu bu ko dee boo leen joxee ñu mën ko jëfandikoo ci bés boobu ñoom buñ jëlee nag togg ko maanaam togg la nga leen jox li wala ñu jaay ko jënd ci beneen matériel loolu seen affaire la yow sa zakat moom jot naa egg ci ñoom rek incha allah bon Eh, bopp bu nekk yow chef de ménage bi maanaam borom kër gi képp ko xam ne sa waaw ak sa déet lay dox rek yow yaa jël responsabilité yow yaa ko war a génneel eh, muuram koor ci kan lay commencé léeg ñu dégg nag borom xam yenn borom xam mu ci liir ba la ñuy commencé di ko génneel jëm ko ci makk oubien bien ci ku makk la ñuy commencé jëm ko ci liir gi waaye yow bul sonal sa bopp ñaata sa njaboot maanaam sa famille ñaata nit ñoo fa nekk fukki nit la. ku nekk ñaari kilo boo koy vingt kilo ngay génne rek jeex na bu ci wan bii pend la wala ñaari kilos yi moodu la wala ñetti kilos yi demb la déet loolu dalay sonal yaa ngi indi sa bopp problème fukki nit la génne nga ku nekk 2 kilos am nga 20 kilos jeex na 20 kilos yi demb ak paata ñépp ko bokk bu la neexee na nga gis yenn nit ñi nu ñuy def nii maanaam nga tibb ñaari kilo nga ne bii demb bii paate bii moodu foo ci commencé baax na ku ci ndaw ka ku ci makk ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul def noonu bon day xam ne tant de personnes la moo nekk ci kër gi tant de kilo la jeex na nga dem sa yoon bu ko defee nga incha allah buñ euh, boo appuyé wu ci ci sëriñ si boo appuyé ci imaam yu nekk ci quartier yi ku nekk sa kër ñu si gën a bëri am nañ pot bu ñuy nattee muuram koor kooku pot spécial la boo xam ne mooroom koor la boo ko amul boo amee sa pot àndaar mooy sa pot dot nu ñu ko mën a xamee boobu mën na 2 kilos nga nattee ko boo ko amul pot ndaal yi ñuy naanee ci ndaal yi mooy pot 1 litre yi un litre boobu égal un kilo kilogramme boo ci amee ñaar am nga benn benn bopp boo ko mënul bu amee sa bastul sa peesekaay nga peese ko ala kulli haal parce que tey natt nu la yërëm salaa sallam nattee maanaam buubee loxo nii parce que loxo euh, loxo loxo yi yemuñ loxo xale wala loxo koo xam ne waxambaane wala loxo ku mag yooyu yëpp yemuñ incha allah lakin comme xam nañ deux kilos rek ñu góor góoru ci muuram koor ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu suñu xeetu jaamu yàlla yëpp suñu muuram koor yàlla subhanahu wa taala luñ ci mébét yàlla defal ñu ko ci eh, barke alquran ci barke ramadan bi incha allah mu des rek li ñuy wax rek incha allah muuram koor fu ñu ko tudd rek mooy korite eh, jot na mooy koor mu ngi jeex comme koor gaa ngi jeex nag dañuy tàggu mbokki auditeurs yi mbokki téléspectateurs yi mbokki ñu nga xam ne ñoo ñu seetaan ñëpp ñu bokk ci liggéey beeg ñu ñuy xelal ñeeg ci préparation yépp incha ñu di leen jërëjëfal bu baax di leen ñaan yàlla subhanahu wa taala moom may ñu fekk ay at at yu bëree bëri bëri bëri yàlla subhanahu wa taala dindi ñu mboolem la nga xam ne suñuy suñuy bàkkaar yu yëg ak yëgul lépp luy tiyaaba weer bi tiyaaba zakaat yi tiyaaba julli yi tiyaaba la nga xam mooy sarax yi ñu doon def yépp yàlla subhanahu wa defal ñu ko fii misaati fii misaani xasanaatina bu ko defee ñuy ñaax suñu bopp di ñaax mbokki jullit yi eh, benn yonente lañ am muhammad sallallahu alayhi wa benn yàlla subhaana taala benn buur la weeru koor benn weer la amul benn weeru koor bu nekk ci biir at mi bu ko defee nag loolu nag ñetti julleeg ñaari julleeg fukki julli mën na ñàkk benn rek moo ci julli te nañ xam ne woor jouru korité xaraam na te buñ mooyul nag dana am koo xam ne kii mu ngi woor jouru korité mu ngi woor bës bu xaraam dana dee xiif dee mar te du am benn tiyaaba bàkkaar lay am bon la ko fi jar nañ dellu ci lu njàngaleem yàlla dellu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi dafa waxoon suumu li ru'yatihi na ngeen woor bu ngeen ko gisee gis bi du nga gis ko question gis bët rek boon kay gumba du woor parce que amul bët yu mu ko gisee mais day yëkk ne gis na day am information gis na bu ñu amee information rek jeex na wax ji jeex na wa aftiru na ngeen dog mooy na ngeen julli ba ngeen ko gisee bon nag bu ko waa Ziguinchor gisee Ziguinchor ci Sénégal la bokk bu ko waa Fuuta gisee ci Sénégal la bokk bu ko waa Tambacounda gisee ci Sénégal la bokk bu ko waa Jolof gisee naka noonu bon julli nañuy doylante julli nañ leen doylante kooku nag yonent sallallahu alayhi wa mu ne julli yépp in euh, comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waaw innamal mu'minuuna ixwatun bay aslihu bayna axwaykum nan la ñu te wóolu ma wóolu la bii jullit wóoluwul Ziguinchor jullit Ziguinchor yi waa Ziguinchor wóoluñu waa maatam wala tel association islamique wóolul bële bon naka lañu naka la ñu diggante mbokk gi nu ñu rattaxalee diggante mbokk gi danga may wóolu ma wóolu la lu ci am ci tiyaaba ñu bokk lu ci am ci bàkkaar booba maa koy gàddu man mu jël responsabilité bon loolu lañu ñaan sénégalais yépp di ko ñaan jolof-jolof yépp incha allah ñaan yàlla subhanahu wa taala mu eh, eh, eh, mu boole dëppale xolu jullit yëpp bañ nekk benn yaram comme ni ko yónni sallallahu alayhi wa sallam mu ne jullit yi seen ak bëggante seen ak jàppalante dañoo war a mel ne benn yaram xool ak seen solidarité dañoo war a mel ne benn yaram xoola benn yaram nu cëri solidarité nu cëri solidarité nopp tey bu métti woon mboolem cër yëpp ko yëg bët bu métti woon mboolem cër yëpp ko yëg pourtant tànk mënoon na wax lu sama yon ci nopp tànk lu muy def lu muy liggéey nopp liggéeyul loolu mënoon na wax lu sama nekku ci waaye saa yu tànk méttee nopp dana yëg métit bi dana solidaire bu biir méttee cër yépp num mu tudd encore bon julli di noonu la ñu war a mel bon loolu ñu ngi ci tàllal loxo suñu kilifa diine yi di ci tàllal loxo suñu kilifa aada yi Sénégal nekk benn إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين